julli ci yonent bi sant yàlla sunu borom ñun ñu bund ñun ñëpp kul naf seen saay xatin mawtu dafa naa lii ñun ñëpp la war a nekk ci loo xam ne nii dañ ci war a taxawaat am ci seetlu bu mat sëkk seetlu bi mooy ku mus mas dund di nga mas a dee sant yàlla kii fi jóge di sunu waajur yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na yàlla teg loxo ci njabootam yàlla may njaboot gi xolu muñ mi sunu sœur la sunu xarit la responsable la euh, kilifa la ci réew mi donc yu mel ni bu amee ñun dafa rafet dafa jaadu ñu ñëw teew ci ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp tey du bisu wax jërë ngeen jëf. dafa doon lépp ci ñun sunu jigéen la Aminta ak Aïda di sunuy jarbaat tabarakallah moo taxoon ñu ñëw bi ko ñaanal yàlla nag liggéeyam ci kaw suuf yaa na ko fekk fa mu tëdd. ñu ngi jaal ñëpp di masawu ñëpp tabaarakallaahu alors rek moo nu fi indi woon <laughs> mooy li wax léegi bi ñuy a ah, sant leen yéen ci seen démarche. tey di moo ci mën a témoigner bu baax a baax mooy suñu kilifa madame la présidente amul benn heure bu mu dul wàcc si bureau te demul seeti yaayam yaayam nekk complice am xaritam nekk léppam vraiment même ñun ñi sax daf ñuy gën a encourager ñu gën a jàpp suñu yaay. donc mama na fi vraiment mu nekkon nit ku baakha baax vraiment yalla wa ku jégué won yaayam la madame la présidente ñu ngi koy jaale bu baakha baax di jaale toute sa famille donc di jaale aussi suñu bop waaw ki fi ki fi jógee mom vraiment que c'était une référence wa une mère vraiment nekkon sage femme Kaolack vraiment yar njabootam si keppaaram vraiment ku gis njabootam rek xam na ne seen yaay yar na leen bu baax mu nekk nit ku yaatu nag nit ku uuf ñëpp uuf collègue collaborateur Mimi Touré ak collaboratrice yam yëpp vraiment daan nañ ko dem nag di ko nemmeeku di ko xool mais mu nekk nit ku baax nit ku yaatu loolu daal laa xam ci moom nit ku jullite aussi jàpp julli seetaan telem di journalam ak conseil ñu lu baax. ki fi jógee sunu yaay la ñun ñëpp c'est la maman de Mimi Touré Mimi Touré nekk man sama rak d'abord. nekk it euh, kilifa ci réew mi nekk responsable euh, am jàmm ak réew mi aussi donc euh, su waajuram génne àddina ñoon ñëpp la suñu waajur génn àddina donc loolu rek a tax ñu ñëw fii vraiment pour compenser and ak mom ci naqar bi et tout ça parce que ñun ñëpp la naqar yi depuis hier ñëpp a ngi nekk ak mom bon ñu jalé di jalé maire bi aussi le chef de l'État di ko jaale tout le gouvernement tout xamal naa ko bu baax nit ku baax ku responsable doon sama xaritu sœur Aminata Mbengue aussi mu seqoon ay euh, lu ne donc euh, li nga xam daal mooy nit ku baax la woon Mimi Touré aussi di nit ku baax donc tey ñàkk na yaayam kon sunu yaay la ñu ñàkk ñuy ànd ak moom ci douleur bi vraiment di ñaanal euh, soxna si yàlla xare ko àjjana.